Youssou Ndour président loolee bëgg-bëggu ki nga xam ne mooy njiital Super Étoile la danañ ci dikke ci lu yaatoo yaatu président son Sonko mu nar a génn ca kaso ba loolee tamit xiinim xaana gi daanaka léegi mu jeex gars yi topp leen ci abonnement bi yow mi door a ñëw euh, defal sab abonnement yow mi ko def ba pare cant ak ngërëm ñeel na la ndax yow da nga am information yi nga xam ni mooy yu wér te ñu gis ko noonu Youssou maa jigéen Youssou Mari seen ci information yi nga xam ni euh, bëgg nañ leen ko teqar ñil tippar ñil leen ko benn par benn ba dara euh, du leen ci ump ci information nga noonu nga xam ne njiital super étoile bi bu ngeen gisee noonu dem nan fële ah, ndaw lim yabaloon fële nga xam ne daanaka ah, moo nekk ci ajjuma ji ah, fële a direction euh, générale des élections euh, maanaam fa nga xam ni euh, fépp foo xam ni war nga faa jël kayit bi nga xam ni mooy tax nga ami parrainage këyit woowee ay mbokkam rocc nañ ko ndànk ci ajjuma ji nga xam ni moom la ñu génnal ñaari fan ginnaaw bi nag fi mu toll nii kon mbir ma leer na ndax këyit woowee soo ko amee dalay mën a tax nga dajale sa parrainage parrainage nag soo ko dajalee ba am ko da mën a pousser candidat ci présidentielle 2024 bii nga xam ni la ñu dëgmal loolee nag lu ngeen ci xam mën ngeen ko yebbi ci commentaire yi ndax candidature Youssou Ndour boobee nga xam ni mooy xeeñ candidature bi nag mënta taxaw euh, tant que tey parrainage bi muy wut amagu ko bu amee parrainage bi nag loolee tamit danañ ci soxla seen xalaat mu nekk information yoo xam ne yu am solo moom mii di Youssou Ndour nga xam ne bëgg naa euh, jiite lii di Sénégal mi nga xam ne réew la moo xam ne fi mu toll nii euh, ña ngay wut ku ko remplacer ki ci ne di président Macky Sall ma ngay tàggatoo nga xam ne jeexal na tàkk président Ousmane Sonko moom it fi mu daanaka information loolee mi ngi ci loxoy takk der yi takk der yooyee nag nit ñi ñu ngi leen di sikkimu bu baax a baax sikkimu boobee nag mooy maanaam di ci sàkku euh, ñëpp nag ñu mën koo bàyyi mu dellu këram doxal euh, ci li nga xam ne mooy élection yi ñu dëgmal loolee ñëpp di sàkku teefu ñëpp ñi nga xam ne daanaka ay julli leen di sàkku teefu ñëpp ñi nga xam ne tamit bëgg nañ kii di président Ousmane Sonko kon ñu ngi koy ñaanal génn ak jàmm ñaanal ko tamit euh, tawféex fa mu nekk